alhamdulillahi zil mulki wal malakut wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman kasira amma baadu aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi nii seetaan di seetaan Sunugal 24 seen émission bu am solo bi ngeen koy am jeudi bu nekk incha allahu taala muy acti ak diini ñu koy ànd ak seen mbokk oustaz Habib Socé ak seen mbokk oustaz Makhtar Cissé gannaaw bu ñu nuyoo kilifa diini ak kilifa aada yi yëpp oustaz asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu cheikh Makhtar aouzu billahi samil wala hawla wala quwwata illa billah sëñ Maxtaar ñu ngi lay ziar bu baax di ziar mbokk internet Sunugal 24. oustaz naka jafe-jafe jamono naka jamono li mu àndal. alhamdulilah macha allah xeeran moo àdduna ñoo ànd. Mhm. alquran moo waxoon mu ne laqad xalaqna al insana fii kabat. fii kabat yàlla mu ne ma bind doomu aadama waaye nag xam ne bindu ma ko ci mu ñëw dina fly de. Mm-hmm. waaw il faut mbir yi di metti di neex. <laughs> loolu mooy àdduna. <laughs> macha allah loolu àdduna dëgg la dëgg léeg-léeg xel dal léeg-léeg xel dem. tubaarkàlla léeg-léeg xel dal léeg-léeg xel jóg. <laughs> dëgg la dëgg la léeg-léeg mu yomb léeg-léeg mu jafe. am na solo tabaarakallaahu. akaza tabaarakallaahu. macha wa kon mu mel ni ñu dugg ci actualité mel ni tabaarakallaahu nu jamono bindoo. ci ni ñu ubbee émission bi itam. am na mel ni mbokk moo xam ne tabaarakallaahu xam nañ ko ci réew mi waaye dafa. yaayam dafa jiitu tabaarakallaahu mm-hmm. ñu koy massaw mm-hmm. di massaw waale képp koo xam ne ñàkk na way juróom wu jigéen tabaarakallaahu looy wax ci loolu yow saas waa sëñ Maxtaar jullit de ak mbokkum jullitam bu amee naqar daf ci war a ànd ak moom comme bu amee ne lu neex muy soxna Kiné Diaga ah, macha allah waaw mm-hmm. kooku borom këram ñëpp xam nañ ko ci réew mi muy coon sekk mm-hmm. rahmatullah alayhima ajmain amiin yaa rabbal aalamiin ñu ngi koy jaal mbooleem senegal yëpp mm-hmm. di ko jaal ay xamaaleem mm-hmm. ak njabootam di leen ñaanal yàlla yërmande ak njéggal comme niñ koy ñaanalee mbooleem jullit macha allah suñu waxtaan amiin kon mu nga am na solo tabaarakallaahu ci njaal moomu nga xam ne moom la ñu diine sant tabaarakallaahu ci mbokk moo xam ne bokka nga ak moom diine génn àdduna nga massawu ñi nga xam ne mooy njabootam comme ni ko oustaz waxee tabaarakallaahu beneen actualité bi mooy soxna ki ñuy wax na bu kebe benn jigéen bi ñuy wax na Seynabou Kébé tabaarakallaahu ñu gën koo xam ci Nabou Dash mu mel ni itam am na ay lay fi yum doon def génnee ay wax yu mu doon wax ci wàllu daara ak ya ci aju wax yi mel ni dérapage da caa nekk mu nekk loo xam ne itam dossier bi mu ngi ci kanamu yoon mu mel ni moom dafa jaam ay preuve yoo xam ne di ko génnee ba tax sëriñ daara yi tabaarakallaahu lu daal di leen métti ci sas bi nu mu ko defee ak ni mu ko doxalee tabaarakallaahu ñu génnee pelante daal di ko yóbbu ci kanamu yoon mhm. oustaz noo gisee wax jooju le ak pelante boobu la yow oustaz suñ maxtaar xam naa ni ma ko gisee rek mooy euh, balaa may wax ci pelante bi ak wax ji mhm. mooy euh, alxuraan daf ñu jàngaloon mhm. li nga xam moom laa gis euh, sëriñ daara yi def te li gën a neex nag mooy nga jàng li yàlla wax di ko jëfee di ko def ñuy gis njiit la di oustaz Mokhtar Sarr macha allah ñu ngi koy ziara bu baax di ko delloo njukkal waaw di ziara sëñ mhm. Babacar Sylla mhm. ñoom ñëpp macha allah ak maam sëriñ Mansour Samb ñoom sëñ Mansour Samb ak ñëpp ñu mhm, leen jaajëfal ak ñu nekk seen ginnaaw dëgg la ndax sëriñ daara yëpp nekk seen ginnaaw alquran moo ñu jàngaloon ne euh, euh, euh, na ngeen topp ñi nga xam ne ñoo yenn seeni mbir ñoo méngoo seeni mbir bu ngeen demee ba gis ne loola nag du saafara mu ne kon delloo leen lépp ca yàlla toog seetaan loo bëgg a wax foofu yow. ok mhm. xam nga euh, boo gisee ñu jóg attaqué ñooñ daara. Mhm. te du guleet du guleet. Mhm. boo xoolee du jamono maam da baax. waaye dama naan dama naan jamono yonent bi sallallahu alayhi dëgg la. jigéen yàgg na attaqué ñooñ islaam. gis nga Abu Lahab. do soxnaam. soxnaam bokk na si jigéen ñi nga xam ñoo njëkk attaqué islaam. attaqué islam bu ñu ko waxee mooy attaqué daara mhm. attaqué daara mooy attaqué alquran mhm. parce que benn base la benn bi la mhm. boo noonu dama attaqué parti sàngam leader baag ñooñ parti baag ñëpp a ànd boo jógee attaqué benn leader sàngam ñu bokkoon ca parti ba ñëpp a jóg wax kon loo ci laal ñëpp nga laal moo tax ndeyteen saxaabatu kiraam ba yéefiri ñëw ne leen yéen seen yonent bi nee na alquran ji mhm. moom daal jibril la koy wàcce ci moom mhm. bu nekkoon sax beneen malaayika la wax mhm. ñu mën a ànd ak moom waaye jibril nga xam ne moo sànkoon suñu maam yëpp ñëpp moo leen alak képp ku yàlla mos a alak jibril lay yebal ko mënuñ koo gëm alquran wàcc ne leen képp ku xam ne dafa noonoo jibril mbaa mu noonoo benn malaayika wala yonent bi xamal ne yàlla sa noon la beneen bi laaj bi mooy léegi nag sëñ Maxtaar mhm. li ma laaj foofu mooy mhm. fi ñu jaar mhm. ñoom dañoo jëfee leen alxuraan sant mooy alxuraan moo leen wax bu ngeen gisee mbir mu leen metti na ngeen ci ànd ak ña ngeen ci war a àndal jaar fa ngeen war a jaar mooy jël nañ mbir mi jébbal ko ña méngoo mbir ma muy waa justice ñoom la ñu def seen liggéey li réew mi laaj daal foofu lañ jaar macha allah foofu lañ jaar sëñ Maxtaar réew mi macha allah beneen bi tabaarakallahu mooy beneen laaj bi mooy nit moom mi nga xam ne moom la ñuy jébbal plainte bi bokk na ci ay waxam dafa ne information bi da am ku ko jox rek mu génne information bi commencé ko traité alquran nan la jàngale ci boo déggee information lan mooy sa devoir ci ci information boo jot lan nga war a njëkk a def. Euh, muy moom ak képp koo xam ne itam mu ngi yëngatu ci wàllu di wax ñu lay dégg. kan la ñuy jébbal information mu jóg wax. Mhm. ndaw si moom ndaw si nee na dañ ko envoyé rek mbir mi. Mhm. dama lay wax rek foofu. Mhm. Euh, benn affaire moo am. Mhm. gis nga dañoo toll si jamono boo xam ne. Euh, am beew dafa yomb te dafa bari. am beew am as tuut beew. te wallaahi la nag la la la la bëy lekk di cëppi cëppi. mu ngi ci nag mu tëdd ak lu ko ëpp ci nag mu tëdd ak moom. te gis nga dafa bari ko xam ne bu ko yàlla mhm. séddee as tuut mhm. mu beew mhm. bu beewee nag du attaqué ñooñ àdduna il faut mu attaqué ñooñ yàlla gis nga waaye nag nii laa toll alquran daf ñu waxoon ne balaa may ñëw ci li nga laaj noonu alquran daf ñu waxoon sootul ah, ah, ah, eh, iqra sootul alaq la mu waxoon mooy eh, kalla inal insana la yatgha an raahu staghna gis nga yàlla nee na doomu aadama Mhm. mooy ku xam ne li ëpp si ñoom su ma leen mosalee bu ma leen mosalee as tuut ñu beew mhm. te buñ beewee dañuy jóg attaqué ma mhm. dégg nga wax bi moo ba muy jeexal ba muy jeexal saaba la ma waxoon mooy gis nga daf ne euh, euh, daf sa araayta allazi yanha abdan iza salla xoolal ki sama jaam bi mhm. mi ngi fee di jaamu yàlla mhm. di jàng alquraanam mhm. di julli di def lépp léegi kii nga xam ne mosol naa ko as tuut moom jug na dal ci kawam pour jéem a fexe num xajamalee cereem bi muy jeexal saar ba ndeysaan yàlla mu ne kalla la tutiahu wasjud waqtarib bàyyi leen ah fal yadu naadiyahu sa nadu zabaniya foofu nag balaa fu ni tey yegg da ngay def maslaha la mooy maslaha bi mooy jël plant jébbal procureur mu jël ko àtte ci mu gën a woyof mhm. loolu moo gën a woyof de mhm. parce que bu ñu defu loolu mu àtte mhm. yàlla mu ne bu ngeen delloo mbir mi ci yàlla boobaa nag la fay sus mooy fal nadu naadis nado zabaniya nañ woo seen ponkal ya leen jàppale bu dee lobee nekk sa ginnaaw woo lobi ba bu dee bi am ab ab uh, uh, nit bu xam ne xaalis dëgg moo nekk sa ginnaaw. Mm-hmm. mu ne woo leen bu dee kuy xëy islam woo leen. Mm-hmm. yàlla ko wax. Mm-hmm. mu ne boo leen wooyee ba ñëw sa nadu zabaniya dinaa woo ñu xam ne xamuñu caaxante ay nitu safara lañ. maam ay malaayik yu jógee safara lañ. bu ñëwee ba dal seen kaw duñ xam duñ xamee lu luy. Mm-hmm. lépp lu amoon dañ ko yàq mm-hmm. dañ yàq sa santé mm-hmm. dañ yàq say mbir li nga doon investir jàpp ni moo lay jëriñ ëllëg du la jëriñ te boo dee fekk ma ma dugal safara yàlla na ci yàlla musal loolu nag yéen wuñ ko kenn waaye dafa am fu mbir mi toll ñooñ daaree sonn nañ trop sëñ Maxtaar nitu daara yi dañoo sonn te toujours balaa ñoo kii rek dañuy jël ko xam ne tekkiwu dara di ko fay muy dal ci kaw ñun daara pourquoi sax te kaay mu wax sëñ Maxtaar lu ñu dégg balaa muy leer ñu profito ci balaa muy leer ci mm-hmm. daara jëm mm-hmm. balaa muy leer ñu profito ci profito yàq ci deru daara mm-hmm. te alors ko warul woon demee noonu warul demee noonu information boo dégg mu ne ci yoon nekk di xool ndax am na wala amul sëñ Maxtaar kooku moom dañuy wax ne diw sàngam yoon mooy wax diw sàngam dañ ko tuumaale gum nangam sëñ Maxtaar kon nit mën a mën a goo indi ay preuve même bu amee même bu amee laa wax même bu amee ñaata yoon lañ fi dégg yu gën a garaaw yooyu foofu junne yoon ci beneen côté bu dul daara mhm. ñu jël teg ci tànk mhm. kon lan moo tax ñu yàkkamte daara mhm. lan moo tax ñu yàkkamte daara te yow mi nga xam ne yaa ngi yàkkamte daara di ko tilimal mosoo liggéeyal daara dara loo ko liggéeyal benn liggéeyaloo daara dara yow daara tiitroowu la parce que ni daara soxla ku ko mel yow meloo ko ni daara soxla jigéen mel ko qul li azwajika wa banatika wa nisaai lmuminin yudniina alayhinna min jalabibihinna dalika adna an yuarafna alquran nee na jigéen balaa nga naan pip fexeel ba yaw na nga muus say cër ba noppi jigéen mu ne balaa ngay mel ni yàlla bëgg ba ngay corriger sa njaboot sax la wax de waxul keneen sa njaboot balaa nga leen corriger ba ngay corriger ab sëriñ daara mu ne fexeel mel ni yàlla bëgg corriger wul sa bopp ba waaw muural say cër say greffaas dindi ko teg ci suuf ndax dafa xaraam yonent bee ko alquran ñëw ne kon nag muur leen seen cër yëpp nag nañ ko mu yudnina alayhinna min jalaabibihinna mhm. yonent bi gën ñëpp moom la yàlla du baaraam daf ne ko yow yonent bi mhm. qul li azwaajika mhm. waxal say soxna wa banaatik ak sa doomu jigéen wa nisaa il mu'min ak mboolem jabooti jigéeni jullit yëpp mhm. ne leen nag yu dine alayhi min jilaabi bihinna mhm. defar leen seen jikko ba noppi mhm. ngeen soog a jóg pour defar seen njaboot waaye nag kon boo nekkee defaroo sa jikko meloo ni islaam soxla yow liggéeyloo alquran dara jóg dal ci kaw ñooñ alquran loolu ak beew la information boo dégg noo ko war a traité. alquran dafa waxoon mu ne. Mhm. in jaakum faasiqun bi naba in fa tabayyanu. Mhm. yàlla nee na subhaanahu mhm. bu ñu la andil information nga dégg ko. bu mu doon. mu ne def ci ak leerlu. xool ba xam ndax lii. dëgg la wala du dëgg. investigation yi wér. nekkee def nga loolu ba noppi. ba noppi. léegi nag xoolal ndax yow yaa ko traité. wala nekkul yaa ko traité. dëgg la xoolal ndax yaa ko siiwal. Mhm. yow la wala du yow. Mhm. xoolal ndax lii ci yow sa loxo lañ ko teg wala déet. Mhm. Ah? waaye mu ñëw yooyu yëpp benn amu ca. wax nga lu solo. gis nga gannaaw bi nga defee sa investigation ba. gis nga ne am na am na. waaw xoolaatal sa bopp d'abord ndax yaa ko war a. wax wala déet ndax porte nga ci. porté ma affaire bi wala déet. ndax yow mel nga ni nga war a mel pour man ko génne nit ñi man ci jariñ wala wala wala déet. dëgg la waaye yow bu nekkee dañ ko andi jox nga dégg ko. Mhm. ñu génne ko. Mhm. te yow ba ki koy xool bëtam ak làmmeñam ak loxom yëpp a ngi lay duut parce que sa dara moolut. Mhm. est-ce que tabaarakallah kon nañ bàyyi sëriñ am na solo am na ñi nga xam ne ñoo jébal plant bi nag. maa ngi leen di ñaanal yàlla fay leen yiw bu baax a baax. ak képp ku xam ne yaa ngi jàppale daara nag laa wax mhm. yal na yàlla taxaw la amiin yaa rabbi waaye képp kuy xeex daara yal na say mbir yëpp yàqu amiin yaa rabbi yal na say tas amiin xeex daara ak koo mënti doona foo mënti nekk sëñ mhm. Maxtaar mhm. yal na say mbir yëpp lakk yal na yàlla soppi leen rek dama ne yal na yàlla soppi leen képp kuy xeex daara sëñ Maxtaar <laughs> dama ne kuy xeex daara laa wax sëñ ma xanaa kuy xeex daara yal na say yàqu waaye yal na yàlla soppi leen nañ ñaan nañ leen ñaanal waxal waxal amit li ma wax waaw nañ leen yàlla soppi teex daara yàlla seen mbir yàqu nañ ñaanal yàlla yàlla soppi leen ba noppi waxtaar mhm. borom soxtaala moo ñu ëpp yërmande ñun ñëpp waa dëgg la ñu ëpp yërmande mhm. te gis nga ñetti aayaa ngi bàyyi ci xel mhm. muy ban ak ban waaw kay borom naan euh, wa man a'rid an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawma al qiyamati a'ma ba muy wax loola am na yërmande te mënoon na baaxal gis nga wax bi dëgg la amoon na yërmande te mhm. mënoon na ko baaxal mhm. waaye lan moo tax mu ne yow miy tug di attaqué téere bii di alquran mhm. te kaay mu wax le kuy attaqué ñooñ alquran ñiy jàngale alquran rek ñi alquran nga attaqué dëgg la parce que ñooñ boo leen fi jëlee alquran jugee fi kon kuy attaqué nga bu nekkoon dafa am ku ñëw rek dal ci dal ci kaw suñu site bi nii kan la attaqué borom site bi la attaqué dëgg la ak ñi fi site bi la attaqué bu amoon ku jóg dal ci kaw Sénégal yal na ci yàlla musal président bi la attaqué. Mhm. waaye ñooñ Sénégal la attaqué. dëgg la. Mhm. kon ku jóg dal ci kaw ñooñ alquran alquran nga attaqué. yaa nee na ku attaqué alquran nag. Mhm. xamal ne sa dund dootu neex. dëgg la. gis nga wax bi. lan mooy solution bi nga gaaw tuub génn ci te bul ca delluwaat. wax dëgg wax mu ne boo ko deful nag xamal ne même yow ma xiyaam boo dekkee da ngay silmaxa. yow ma xiyaam. boo dee ba dekk. alaaj ji nga doon tiitoo lépp jeex mhm. mu ne da ngay silmaxa dëgg la boobu mooy premier aaya bi dëgg la deuxième aaya bi suñ mhm. nit ñi war nañ ci bàyyi xel baax a baax yàlla ëpp ñëpp yërmande mhm. la moo tax ñoom aba jeex bi ñu seen saxam daanne ko léegi nañ jaamu suñ yàlla yi su ko ñëw jaamu sa yàlla yi ñu def ñu def layit day layit yàlla ne déedéet wax leen ne leen qul yaa ayyuhal a mhm. laa a'budu maa ta'buduun dëgg la wala antum aabiduuna maa a'bud mhm. wala ana aabidu maa abadtum mhm. pourquoi yàlla di utiliser lii di insister naan ko wax leen ne yéen du ngeen a jaamu li may jaamu parce que gis na ni ñii fañ jaar du foofa te jëluñu décision de retourner kon nit bu am fu muy toll. dem ba mhm. jëlatu décision retourné. Mhm. da ngay wax ak moom ci façon booba. Mhm. waaye nag ànd ak nga ñaanal yàlla yow ñaan nga féetewoo. ba pare sëñ maxtaar ba pare nga bàyyee yàlla mbir yi. ñoo ngi ñaan yàlla. muy ma ñaan la ñu njëkkee sëñ maxtaar. waaye nag ki nga xam ne mi ngi xeex alquran sëñ maxtaar. kooku moom yàlla na yàlla essuyer ay mbigam yëpp. ku lépp lu mu am yàlla na lakk. <laughs> amiin yaa rabbi sëñ maxtaar <laughs> kuy xeex alquran. lépp na lakk. maa ko ñaan yàlla. Mm-hmm. bu yàlla namm ci moom yow mii seetaan waxal amin <laughs> sëñ Maxtaar ku bañ a bokk si ñaan gi bul xeex alquran waa dëgg la loolu rek mooy wax ji mm-hmm. ku bañ a bokk si ñaan gi mm-hmm. bul xeex alquran boo ca nekkoon gaawal génn ca waxuma ki ci nekkoon génn ca de yow mi ci nekkoon yëg lii rek xam ne que la nekkoon baaxul nga bàyyi gaaw génn génn ca dem di jàppale alquran wala nga maanu ci ñooñ alquran mhm. taxoo ma di wax mhm. parce que alquran waxoon na ne mhm. illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyiatim xasanat dégg nga wa kan la gafuran rahima yàlla nee ba mu des ki nga xam ne bi mu yëgee ni xeex alquran dafa xaraam dafa retiré wu jugee ci mboolem lu bi bu xam mu ngi xeex alquran ñëw fexe di def lu baax day sellal bàyyi ñooñ alquran ñu am jàmm yàlla mu ne ah kii de moom dama koy sensé sax jëf yu bon def ko mu nekk waaye yow mi féeteerlu mm-hmm. naan nañ dem procès nañ def nangam ak mm-hmm. teg ci di wax ay waxu ya ay mm-hmm. vidéo yu xam ne vidéo saboté la jëm ci ustaas yi sëñ bi dama lay wax kaay ma wax benn affaire gis nga lépp lu fi am amaat la amaat amaat amaat parce que amoon na fi ay jamono téere yi bind ko ñëpp gis ko dëgg la moom kon nag ku bëgg lu baax waroo fexe bokk si ñooñu suñu waxtaan maa ngi jég lu baax baax ci guddal gi parce que fi ñu laal moo ñu metti dëgg la am na solo tabaarakallaahu ci kàddu yooyu le kon mu mel ni nekk na kàddu yoo xam ne tabaarakallaahu leer na ñun ñëpp dégg nañ ko képp koo xam ne itam yaa ngi wax loo xam ne duur loo war a wax nga dellu sa ginnaaw balaa muy àgg foo xam ne tabaarakallaahu da nga ko rëcc sa digganteeg sa borom ñi ngi jaajëfal nag Makhtar Sarr Oustaz Makhtar Sarr ak ñamu àndal tabaarakallaahu ndax nekk nañ sag ci diine tax nañ ba lépp loo xam ne dégg nañ ko ci balaa mii leer ku ci bëgg a wax da xam da nga da nga ko saytu saytuwaat ko balaa nga ciy yëkkati kàddu ndax doomu aadama bu bëggee lëggéeyal diine day jël deram bi ñu di ko tilimal diine set waaye bu ñëpp fonkee seen der rek diine tilim kon yaa oustaz ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla dooleel leen waaye yàlla yàlla dooleel ñoom Oustaz Makhtar Sarr ak yum ñu mel ni yéen tabaarakallaahu yàlla na yàlla dooleel ñëpp rek jëri ngeen ngeen jëf ñu ngi seen ginnaaw rek mhm. mais am na solo ñun moom as sagaru nit lañ. mais am na solo dëgg la am na solo waaye nag fonk nañ fonk nañ alquran. fonk nañ mm-hmm. ñooñu alquran. Mm-hmm. Oustaz Makhtar saa mm-hmm. wax naa ko fii waxati ko fi. moom ak ñam àndal muy ànd sama jikko yi. ñun ñoo ñoo bokk. yow mi may seetaan. man ak ñoo ma bokk de. wala jàpp mukk ne ñun dañoo xaajaloo. dëgg la yëpp benn lañ. dëgg la ci kuréel gi nga bokk. waaw. gis nga wax bi mhm. yonent bi sax moo ñu waxoon ne mhm. wa man tashabbaha bi qawmin mhm. fa innahu minhum am beneen waaye boo xam daf ne fa huwa minhum waaw gis nga fa huwa minhum nit ki ñi ngay jéem a nduru jéem a bokk sa ñoom yonent yun sasam nee na ci ñooñu la la yàlla classé ci ñooñu nga bokk yow yaa fa classé sa bopp sax foofu nga bokk yow kon ñun fi ñu bokk mooy ci ñooñu alquran ñun ñun lañ bëgg a ndur ñun lañ bëgg a kon yow mi nga xam ne buñ laalee alquran nga jóg war a nga Mm-hmm. ak noo manti toll mm-hmm. xamal ne wàcc nga yoon bi mm-hmm. wàcc nga yoon bi de ah yun sam dafa amoon ndeysaan euh, benn ndeysaan benn benn benn euh, euh, nu ñu ko xatee benn naafeq wala ay naafeq yu xam ne dañoo mos a ñëw ci saxaabatul kiraam ku demee Abdullah ibn Ubay bu ñuy ba dajee ak ki nga xam mooy saxaabatu kiraam mhm. ñoom ababakariñ mhm. naan leen ah yéen moom ñun yéen yéen gëm mhm. yonent bi lañ gëm ñun moom ñu yéen a faar gars yi moom lañ nekk ay caaxaan la gis nga waaye na ñun jullit lañ waaye gis nga bi ñu demee ba ababakar dem ñu retourné dellu si ñoom aba jël bon ya dañ naan leen ah ñun de bañ dajeeg yéeféer xoolal asaat ustaas yi ustaas alquran yi ñoom ababakar bañ dajeeg ñoom saboote nañ leen xoolal doon nañ leen marto bañ jàpp ni ñoom ñoo ma ànd mhm. léegi nag li fi des mooy nañ teg suñuy palaa mhm. fexe ba daaneel ba daaneel islam waaye tey fan mu mujjee tey mhm. yàlla mu ne ah def leen ndànk rek ndeysaan wa ida laqu lazina amanu qaalu amanna am na ci diine ji ba léegi sax suñu waxtaan waaw am na ko xam ne tey boo gis dag nga naan ab oustaz la da nga naan borom xam-xam la Sénégal tey boo nee qaala rek ñu ne borom xam-xam la gis nga mhm. léegi nag kooku nag mën na ñëw ñu fay ko xaalis muy mu mhm. la wala mu bëgg a siiw tax mu mhm. jàppale beneen kalan buy xeex islaam waaye yàlla mu ne kaay mu wax leen wa iza laqu alladina amanu qaalu amanna foo leen gisee la ñuy fësal mooy jullit waaye wa iza xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum bu ñu loo nga xam ne gisatuñ benn ustaas wala benn média wala gisuñ lenn ñoo fokkat ya ñooy nekk ak caaxaankat yi naan ñun kat yéen lañu àndal ñii bàyyi leen fi dañoo tardé mm-hmm. ustaas yi dañoo tardé dañuy wax bëgg leen jox duñ def seen duñ def mm-hmm. wax bi day am mm-hmm. waaw wa ida xalu ila shayatinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un la ngeen déggul ñuy wax noona dañ leen doon rek saboote rek sabotage rek dañ rek waaye yàlla nee na def leen ndànk allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun mm-hmm. ulaika alladina ishtaraw dalalata bilhuda mm-hmm. fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin jërëjëf ci waaju am solo joj kon oustaz ñu taxaw foofu teg ci baaraam ñu daaneel lee ci tabarakallahu laal tuuti ci fi ñu toll woon ci wàllum taaye ci la ñu toll woon yaakaar naa ne ci abduhu wa rasuluhu macha allah muy kon am na ñaari ràkk tabarakallahu léegi nit bu jogaatee fekk mu nekkoon di julli tisbaar bu jogaatee lan la war a def. ak nan ak nan la war a jógee après bi mu taayaa. macha allah gannaaw bi mu taaya ba noonu. jërëjëf suñu maxtaar. Mhm. ñu ngi ziar bu baax a baax suñu bu baax. Mhm. Euh, xaasi ngóor fay. Mhm. ñu ngi koy ziar bu baax macha kuy topp émission bi la. chaque jour mu ma seen émission bi tey nangam ak nangam. macha allah ku baax la ngóor fay ñoo dëkk fële ci Kër Massar. ñu ngi koy ziar bu euh, baax. ñu ngi koy ziar macha allah taala. di ziar tamit nag euh, ki nga xam ne mooy. Euh, euh, oustaz euh, Ibrahima Njegéen ñu ngi mm-hmm. ziar baax ñoo mm-hmm. dëkk suñu xarit la masha mm-hmm. ah, allah noonu leen ziar tamit nag mbooleem ñu xam ne rek nitu diine lañ ñoo ngi leen ziar baax a baax leen wàcc seen wàccuwaay dégg nga sëñ Maxtaar ñu ngi yemoon ci deuxième rakka deuxième rakka bi ñu ngi taaxee woon ba war a jóg ba war a jóg fa lañ yemoon yaakaar naa waaw fa lañ yemoon bi ñuy jóg nag gannaaw boo taayaa ba yegg si mhm. euh, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mhm. yow mee seetaan bul fàtte taaya mooy lii lii mhm. li nga toogee naan nii bi nga toogee deuxième rakk wala naan nii wala nga ne nii sa baaraam mm-hmm. boo ne nii waxoon nañ la baax na mm-hmm. mooy danga ne yàlla rek fi nekk mm-hmm. boo naan nii yaa ngi dóor seytaane bi nekk sa xol ndax sadit bi dafa am borom xam-xam yoo xam ne sadit bi dafa continuer ñëw ba ci ba ci ba ci xol buy yëngu sa xol bi day tax muy gën a tooy kon yaa ngi bàcc seytaane ba fa nekk muy wàcc kon nga gis na julli julli léppam yiw la yaa naan as ba nga taay bale wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu li mm-hmm. nga yemee foofu nag nga daal teg la loxoy ne jóg ci kaw ne allahu akbar mm-hmm. foofu nag sëñ Maxtaar mm-hmm. da ngay jóg ba taxaw da ngay jóg ba taxaw nga ne allahu akbar dañuy wax ne nit buy julli fenn la làmmiñam bi noppaloo benn bërëb ñu ne ko fan la mu ne mooy moment bim taayaa premier taaya deuxième rakk bi noonu war a jóg taxaw diggante boobu làmmiñ bi day noppalu li des yëpp dañuy bëgg allahu akbar ji de ànd ak li ngay pratiquer. li mm-hmm. ngay wàcc. Mm-hmm. ànd ak allahu akbar ñu xam kii day wàcc. mu mm-hmm. ngay sujooti kat. bi ngay jóg allahu akbar ñu xam mu gis nga bi ngay sigi sami allahu liman hamida ànd na ko moom sigi bi sami allahu liman hamida pour jógaale ko. waaye bi nga toogee taaye premier rakk. de kii deuxième rakk rek. war a jóg. foofu da ngay noppi. da ngay noppi da ngay noppi. jóg ba taxaw tem. nga ne allahu akbar. gis nga foofu làmmeñ ñu noppaloo. léegi nag bi nga jógee taxaw allahu akbar mhm. ñaari ràkk yii des mhm. bokkul ak ñaari njëkkoon na jàng yi paas sëñ maxtaar bokkuñu bokkuñu mhm. ñaari njëkkoon a jàng lu ñu ci jàng sëñ maxtaar fatiha ak saar macha allah wala aaya wala aaya bii nag doo jàng saar doo jàng aaya xam nga looy def fatiha dong ngay jàng bu dee julli tisbaar la muy mhm. quatorze heures muy troisième rakk bi ak quatrième bi waaw ak quatrième bi mhm. fatiha kase ngay jàng mhm. lan mooy fatiha muy alhamdulilahi rabbil alamin ba ci wala arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyaka nabudu wa iyaka nastain ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim mhm. wala daalliin mhm. lii ngay jàng mhm. lii na kenn du ko jàngee ci abc de kenn du ko jàngee ci xeex daara de lii ñu sëriñ daar yee ko jàngale te mooy defee fi defee fële gis nga loolu ngay jàng fatiha boo jàngee fatiha bi ba noppi suñ maxtaar sa daa mel ni yaa ci xeex ba léegi de ah, sëñ daara <laughs> sa wàccal ah? wàccal garde bi tuuti nit ñi dañuy fooy lu kenn dul fooy muy alquran. Mm. nañ continuer moo tax nga mer nii. waaw nañ non meruma parce que <laughs> meruma sëñ Maxtaar <laughs> gis nga meruma waaye dama dama dafa am lu dafa am lu xam ne. Mm-hmm. gis nga allahu akbar. Mm-hmm. dafa am yar bu may ragal mu bàcc si kaw nit. Mm-hmm. te mooy merum yàlla mhm. te gis nga loolu bu xasee wàcc yàlla nañ mhm. ci yàlla musal amiin yaa rabbi doon yem ci kenn rek dëgg la yaa ngi dëgg la fatiha <laughs> dëgg la gis nga troisième laajte bi sëñ Maxtaar bi nga jàngee fatiha dama lay tooñ bëgg nga troisième macha allah yaa baax <laughs> nit baax la macha allah gis nga <laughs> ah. troisième rakk bi nga jàngi faatiha ba ci wala daalin mhm. da nga na allahu akbar dem rukkoo mhm. comme na nga defoon mhm. rukkoo ma fàttil la mooy wàcce mooy sëgg jàpp say zone yi sëgg bi ngay sëgg jàpp say zone nga sëgg jàngaat subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim wa bihamdihi wa bihamdihi subhaana subhaana rabbiyal rabbiyal azimi azimi wa bihamdihi wa bihamdihi nga sijjiwaat mhm. sami allahu liman hamida mhm. gis nga moom ngay jàngaat mm, maximum ak minimum ban moo ci gën a tuuti li li gën macha allah mhm. jërëjëf suñu maxtaar waxoon nañu ko émission bi passé dañ koy fàttaliwaat maanaam subhaan rabbil azim bi trois fois lu mu néew néew bu dee lu gën a bari man nga def ba sept baax na dégg nga bu la neexee mën nga def ba muy maximum bu la neexee defal waaye na tóol dégg wax jërëjëf na tool maasa mhm. allah lu maa doon na tool jërëjëf <laughs> nga siggi sami allahu liman hamida mhm. bi nga li allahu liman hamida mhm. léegi nag foofu gis nga da ngay wàccaat dem sujjooti léegi nag diggante sami allahu liman hamida ak wàcc sujjoot ci mboolem ràkke yi am na xilaaf waaye nag xilaaf boobu nekkul lu mooy am ñu xam bu ñu sami Allahu liman hamida dañ mhm. teg rabbana wa dañ ci teg euh, euh, euh, maanaam mhm. hamdan tayyiban mubarakan ñaan boobu ñu ci teg muy ñaan daal gis nga ñaan la mhm. rek mais ñàkk ko def yàqul dara dégg nga yàqul dara pour mais daal mais daal ñaanang fa ñaanang fa mais yàqul ci julli bi dara yàqu ci daara ñàkk dëgg la am na solo léegi nag bi nga sami Allahu liman ñu la wàcc teel nga dem mhm. sujjootaat mhm. na nga defoon ci deuxième rakka premier mhm. rakk nu ngay defaat jàngal subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana subhaana rabbiyal rabbiyal a'la a'la wa bihamdi wa bihamdi subhaana subhaana rabbiyal rabbiyal a'la a'la wa bihamdi wa bihamdi trois fois moom nga jàng sa sujjoot nga siggi allahu akbar toog entre ñaari sujjoot premier studio deuxième studio ñaar hmm. studio entre yooyu hmm. Hmm. bul studio rek siggi rek studio taat boo siggee dañoo bëgg nga toog am ñaan boo fi nga teg fi ñaan biñ jàngale woon ci émission bi passé ma jaaraat ci muy rabbi rabbi igfir lii igfir lii warhamni warhamni wahdini wahdini warzuqni warzuqni wajburni wajburni wacaafini wacaafini bu jëfee ci yow mhm. waxal rek rabbi rabbi igfir lii igfir lii warhamni warhamni bu jëfee waxal loolu mhm. doy na mhm. gis nga parce que ñaan la nekkul farat nekkul sunna waaye warzuqni bi moom gars yi soxla nañ ko de soxla nañ ko parce que wërsëg bee tax waaw ah, bu la yàlla jéggalee te xol la bëtu yërmande te poos bi dara nekku ci wahdini xaw doy xam nga warzuq ni baax na waxal gaa yi ñu yem ci warzuq <laughs> kon nañ yeggale masha allahu xeyran jëf Cissé kon am na solo tabaarakallaahu kon ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci troisième rakk bi troisième rakk mm, ci sujjóot bi ba siggi bay ñaan ba war a dem sujjóoti waat war a dem sujjóoti waat mm-hmm. léegi jàng nañ rabbi yaxfir li warhamni mm-hmm. wahdini mm-hmm. warzuqni wajburni wa aafini gis nga bi nga jàngi lul ba noppi nag da ngay siggi nga wax allahu akbar jóg taxaw dellu jugaat waaw mhm. da ngay siggi muy mhm. deuxième sujud pare na da ngay mhm. siggi jóg allahu akbar jóg taxaw ñu ngi ci quatrième taxaw ñu bi ni nga defoon ci troisième rakk bi moom ngay def ci quatrième rakk ñoom ñaar ñoo yem gis nga li ñu wuute mooy boo demee ba deuxième sujjoot ci quatrième rakka da ngay taaye comme ni nga taayaa woon ci deuxième rakka bi ngay taaye fii nag bi nga yëggee ci abduhu wa rasuluhu doo fa yem da nga ciy teg salaatu ibrahima bu la neexee mën nga si teg ñaan bañ cee ñaan. foofu dañ fi def stop ba yàlla indiwaat ñu fi. macha defee ñu daal jaar ci ñaan bi yëpp indi taaya bi niñ koy. ñaanee yëpp ba mu jeex tabaarakallah kon fi nga xam ne moom la tëjee mooy koo xam ne da doon taaya ci boppam. bi mu ñëwee ci première taaya bi. Mhm. au lieu mu war a toog ci deuxième bi mais da koo daa jóg continuer ci troisième rakkam. waaw ba mu taxawee ba pare. xelam mhm. doo daj ne moom toogul taaya. foofu souvent ñi dañ ci problème te daa mel foofu ku fi am problème en général boo jàngul dinañ ñu ko xam daal. macha allah sëñ Maxtaar question bu am solo nga dugal. Mm-hmm. yow may seetaan loolu question la bu mu dugal. Mm-hmm. daf ne. Mm-hmm. ki nga xam ne deuxième rakkaam. dafa waroon a toog. mu juum dem taxaw. bi mu jógee ba taxaw. xelam dem ne moom kat dafa waroon a taaya. sëñ Maxtaar kooku dañ naan ko continuer. parce que li nga bàyyi muy taaya. sunna la sunna la. waaye li nga nekk muy faatiha mhm. farata la farata la kenn du bàyyi farata mhm. dem ci sunna mais am na ñoo xam ne ñu wàññeekuwaat ñëwaat bu gis nga boo wàññeekuwaatee mhm. dara nekku ca waaye boo kontoon moo gën moo gën léegi nag liy changé foofu mooy atte bi mooy changé loo ci def rek am na àtte waaw am na am na àtte bu nekkee bi mu jógee taxaw dellu si waatuwul bu jullee ba julli gi man ba julli gi noppi avant muy sujjoo avant muy sëlmal day sujjoot ñaari sujjoot qabla salaam. moom la ñuy wax qabla salaam. qabla salaam parce que mm-hmm. dafa bàyyi toogaay ba. Mm-hmm. nan nan la ñuy defee qabla salaam. yow qabla salaam mooy da ngay ta boram boo boo sujootee. Mm-hmm. sa ñaari sujoot ba taayee ba pare. ba nga xam ne sëlmal rek moo des. doo sëlmal de. da ngay sujootaat ñaari sujoot. comme na nga ko defee woon. kon mu nekk quatre sujoot. quatre sujoot. léegi nag bi nga toogee. nga daal di taayawaat. soog a sëlmal mhm. taay bi nga jàngoon mhm. da nga koy jàngaat nga soog a sëlmal mhm. léegi nag booy sëlmal boo ne asalaamaaleykum maanaam boo taaya ba war a wax asalaamaaleykum da ngay sujjoot da ngay sujjoot siggi waaw toog toog toog dellu sujjootaat siggiwaat toog toog ta répété waat taaya bi soog a sëlmal loolu mooy xabla salaam loolu mooy xabla salaam jërëjëf yaa oustaz léegi nag loolu mooy ki nga xam ne bi mu fàttee toog bi jóg na taxaw waaye dellu siwut léegi nag su nekkee bi nga demee ba taxaw sa xel dafa dem ne kat dama a toog. Mhm. nga dellu si toog. Mhm. def sa taaye. Mhm. soo paree dañ naan la sujjóotal baada salaam. baada salaam. parce que léegi da ngaa yokk. bi mooy da ngaa jóg. dellu si loolu nga yokk. gis nga wax bi. baada salaam mooy gannaaw boo taayaa ba pare. ne asalaamualeykum. nga taay nga sëlmal. léegi dañ naan léegi sujjóotaatal ñaari sujjóot maanaam sujjóotal. siggi toog. sujootaat kon ba'da salaam mooy ñaari sujoot yi nga def après julli après julli gi. Mhm. da ngay sujoot. Mhm. siggi nan la ñuy defee ba'da salaam moom nga expliqué nii moom laa expliqué nii jërëjëf. boo taaya ba sëlmal. Mhm. léegi nga war a sujoot ba'da salaam. dañ naan la sëggal def benn sujoot. siggi comme na ko defee woon. sujootaat. siggi. nga daal di taayawaat encore. daal di sëlmal. gis nga wax bi mm. loolu mooy baada salaam dëgg la boo déggee ñu ne qabla mm-hmm. mooy avant ngay sëlmal ci julli gi mm-hmm. buñ ne baada mm-hmm. mooy après bi nga sëlmalee ba noppi nga sujootaat ñaari sujoot taayawaat sëlmalaat kon ci sujjoot ba qabla salaam benn sëlmal la am kon qabla salaam ci wàññi ci la am qabla salaam kooku moom mooy ki nga xam ne julleem am na lu ci manqué te la ci manqué du farata sunna la waaw kooku moom moom xabla salaam baada salaam mooy ki doon julli am lu mu dolli ci julli gi mu ëppal ko donte benn toogaay la bu mu répété ci biir boobaa ëppal na ko da koy defal sujootu baada salaam jërëjëf yaw saas jëri jërëjëf yaw saas kon mu mel ni fan la ñuy fan ngay tàggatoo tabaarakallaahu kàddu yi ngay nuyoo mbokk yi li may tàggatoo ñëpp mooy mhm. yow mi may topp mhm. bul julli gi jeexagul dëgg la ñu ngi tolloon ci taaye bu mujj. Mhm. te bu ñu xam taaye bu mujj nag. Mhm. bu ñu paree conséquences yi faral di am yëpp dinañu ci. delluwaat nañ koy defee mhm. ak conséquences yi am ci biir julli gi mhm. juñu nañ ci benn waaw nañ ci benn waaw benn mhm. question te it mu nekk bu gën a jafe sax la ñu indi moom la ñu indi allahu <laughs> <laughs> yëpp nag insha allah dañ la ko toppal point par point yow miy topp émission bi di Actu Duni bul yàkkam maa ngi lay ñaan del commentaire tey aimé tey bàyyi xel émission bi chaque jeudi insha allah lépp lu aju sa julli dañ la ko indil benn par benn ba nga comprendre ba dàq julli sii jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon mu mel ni tabaarakallaahu foofu la ñu leen di joxe dig daje ñaan yàlla mu indiwaat ñu bi ci jàmm waaye itam ñaan yàlla itam defal leen jàmm yéen ñu doon seetaan lépp loo xam ne nekk na ci njuumte lu doon sunu yéene ak sunu bëgg-bëgg mooy defar rek boo ñu taxoon a jug lu ci jub ci yàlla la la waaye lu ci nekk njuumte ci ñun ñu doon wax la ñu ngi sàkku njëggalu yàlla mu jéggal ñi waaye ñu ngi sàkku itam njëggalu doomu aadama yi bu dee juum nanu in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh